waaw maa ngi door ak maa ngi jóge Dakar. lan jóge. ñu ngi jóge ba Mérina Sarr euh, ñu bokk ci waa Nimzaat. waaw Cheikh na Cheikh Saad bu mooy sunu sëriñ. man Dakar maa ngi soog man maa nga jógee Lambaye. maa ngi jógee nag euh, Dakar. autoroute bi nga jaar wala. waaw autoroute Ila laa jaar. laa ñëw màggal si jóge Dakar. waaw. bi. yoon ah, jàmm rek jàmm a ngi si yoon bi de. sant nañ yàlla bu wër. yow Ila Touba bi lañ jaar. waaw Ila taw féex rek barke maam Cheikh taw féex rek sa kaw may xamal mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñëw fii. li suñu borom waxoon wa man amila saalihan fali nafsihi kon bis ci la bokk ñu mën cee jëfal Serigne Bamba loo xam ne nii ñàkk a jariñu la. yoon bi moom xat na trop waaw sonn nañ trop moom. Ah, waaw moom wax dëgg yàlla xat na lool xat na lool fi mu nekk nii. yoonu suuf bi lañ ñu ngi génnee njéene. waa Kamadou. metti na tuuti rek waaye sëñ Touba jar na ko. ñu ñaanal Serigne Mountakha màggalu jàmm incha allahu taala. paas non seerul oto daayira lañ jël mais dañoo ñëw ba fii pour oto bu la yóbbu fi nga dem kay moo jafe moom. yàlla ñëpp ñëw bi nag waaye sant yàlla rek. Euh, ñu ngi ko daw une heure trente waaw lañ ko daw euh, te maanaam guddi gi maanaam wóorul daal guddi gi ndax euh, amul ay lumière li gën daal mooy bëccëg bi ku mën a daw bëccëg bi mooy gën. waaye guddi gi ku mën a daw guddi gi mu daw ndànk. xanaa mbéte rek ndax amuñu lulu dul Touba amuñu lu Serigne Touba kon dañuy gën a sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla dolli suñu taalibe. sëñ sëñ Touba ndax ñun sëñ Touba dañoo defar ndax sëñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am man ba ma jébbaloo ci sëñ Touba ba tey tubaarkàlla macha allah am naa ci kër tuddee ko maam Cheikh Anta Mbacke borom Darou Salaam maa ngi sant sëñ Touba bu baax. sant sëñ Touba rek man sant sëñ Touba rek waa Touba Daaru Minam di sant sëñ Touba sañ sëñ Moustapha Bassir sant sëñ Touba rek ñu ñëw fi rek di xeewu rek di barkeelu rek yi ma nañ fi daaw ñëw fi rek yàlla nañ fi ak déwén jéeg yal nañ fi yàgg ñëw ak mboolem jullit yàlla yokk xéewal geeg mën gi boole xol yi mu doon benn sant sañ Touba sant sëñ Touba rek xéewal gi ñu tasee tey mu tombe bisu àjjuma ñu julli ba pare taseeg yéen ñu baax ñi yal nañ ko def ay déwén si xul xadim moom moo mel noonu amul tànk ginnaaw tànk kanam rek di ñaanal sëñ yàlla yàgg ko fi ci yoonu murid bu baax a baax a baax naal yim naal lépp daal di yegg ci jàmm incha allah ñoo leen sant bu baax alhamdulilah. ko jërëjëf sëñ Touba yàlla nañ ko màggal ay màggali déwén màggal gi tubaarkàlla neex. sant sëriñ Touba laat barke sëriñ Fall. waxal bi wa jusmaani li mu dil badi li yusafiru asmaa